département de Diourbel euh, am na tey kaawam bu njëkk Covid 19 muy benn xale bu jigéen boo am ñetti at boo xamante ni cas contact la mooy maanaam xam nañu kan moo ko wàll benn benn parent moo ko wàll boo xamante ni dañ ko dépisté woon mu am doomu jàngoro bi talaata Touba bon bu ñu ko yëgalee tamit ñun dem nañ ci kër gi def lu ñu war a def def investigation yi prélevé ñi nga xamante ni ñëpp nekkoon nañu en contact ak moom. ak waa këram bu ñu prélevé tamit euh, démb ci guddi ñu xamal ñu ne prélèvement yi ñu defoon am na ci benn boo xamante ni positif na muy doom bu jigéen bi am ñetti at donc mu nekk ñun suñu suñu premier cas boo xamante ni am nañ ko fii ci jaare mm-hmm. waaw ak ñoom bu ñu leen prélevé ba pare ñoom ñëpp pour éviter ñu am yeneen contact dañ leen jël yóbbu leen ci benn hôtel bu nekk Mbàkke pour euh, surveiller leen foofu kër gi ñu dëkk tamit ba ñu leen jëlee dem nañ fa pomp nañ ko désinfecté nañ ko ba nga xamante ni benn doomu jàngoro bu fa des bi loolu weesoo tamit def nañ fa ay disposition sécurité pour que kër gi ñu sécuriser pour que dara bañ fa dugg wala dara bañ fa yàqu comme dañu jël waa gi yóbbu leen tamit yoon la ci ñun ñu def de sorte que kër gi mu bañ a am dara lu leen fa naqari moo tax def nañ ko benn dispositif de sécurité boo xamante ni dinañ a garder kër